tey moom muy doomu Pikine ma ñëw ci chose boobu soutenir ko deuxième chose mooy ma bokk ci parti bi nag bokk APR di influenceur son excellence président Macky Sall lavoro molto parlo poco c'est numéro uno ñun ñoo taxawoon démb naan bu leen taal berté bi ñoo taxawaat nii tey naan berté bi ñoo ko moom ñun ñoo taxawoon ne terre bi bu ko kenn taal dégg nañ lu ne wax nañu lu ne waaye dañ xam ne lépp ci Sénégal la alalu réew mi la état continuité la dëgg la wala dëgg li fi président Macky Sall liggéey président Diomaye Faye moo koy yegal son excellence kon état continuité la gars yi nañuy rafetal kàddu yi ñu xam ne ñoo bokk réew mi Sénégal kenn mënu ko xar ñaar benn couleur moo fi am mooy vert Diallo Rosso vert zone 12 loolooy suñu bandière ñu xamee ñu lan teraanga waaye ñun tamit ñun ñu ànd ba Bah Diakhaté man véré afia l'international du ma ragal. d'accord mais jàpp nga ni tey Bah Diakhaté dina fanaani tey këram. am nañ ci yaakaar bu baax loolu am nañ ci yaakaar ne Bah Diakhaté mais deful luñ ko war a fii téye dañ koy laaj mi ngi tontu luñ am na loo xam ne nag ci kaw la quoi ñun foofu yegguñu fa suñu xam-xam yeggu fa mais ñi ngi déglu ñu ngi liir ñu ngi gis sunu leader yi nañ génne sutori na waat baay Diakhaté jàmbaar day bëgg jàmbaar Baye jàmbaar la jàppale na senegal taxawu askan bi taxaw ñëpp ñu ngi war a taxawu ay nattu nag du wees su doomu adama te fii mi tool sax ku demul jël bokkoo de pour dem jël ñëwaat na loxaluñ loolu man politicien lañ ma tuddee Daawur njaa ñun ñooy ay Baye Diakhaté yu ndaw ñun ragaluñ dem jeel premier jour bi ñu ko téye fële ni ñu koy waxatee sax dig maa nga fa woon leader yi ñu ngi fa woon Pape Malick ñu fa nekk waaw waaw Isaaxa Diop ministre mi ngi fa woon maa ngi fa woon ñun lañ dóor la lakaramosel yi mhm. gars yi xëy na di ma ko mbalagee naan ma véri man leen noonu la parce que homme de terrain yi fi nekkoon démb ñoo fi nekkaat tey ñu doon dóor booy dem tey ñoo ñuy dóor tey loolooy état moo tax lu ñu respecté waat suñu justice

mun leen ba ni ma fi jugee du ma ko accepté du ma ko nangu Baye Jaxate nag dafi ñëw wax li mu war a wax mais a pas dafa gaaw tam affaire bi a wax pare goo sax ñu jël te la yóbbu nangam sangam tëj non tëj du noonu. da nga jàpp ni xoxotal la. waaw xoxotal la. si mm. man ne ma noonu arrêté naa influenceur Macky Sall bàyyi parce que ne da am famille am njaboot. sama njaboot ñaan ma ne ma bàyyil nga dellu Europe kon na sa liggéey man leen damaa bëgg président Macky ma dëgg la waaye Macky waaye li ñu naan jàmbaar day bëgg jàmbaar lii mun ma si ñàkk bañ a wax Baye Baye Diakhaté ñun ak moom ba fu mu yem neex man viré afia l'international numéro uno man ak Baye Diakhaté fu mu yem neex ragal lu ma daw ma daayu ma Pikine laa dëkk du damay laqatu moo tax mais respect ma xam ma subi sama casquette jàmbaar day bëgg jàmbaar wàllu wàllu Pikine dafa mel ni dafa des ci ñi nga xam ne ñoo war a ñëw jàppale Baye Diakhaté concernant quoi en fait waaw na nekk li nga wax hmm. parce que yenn saa mën na doon affaire parti Eh, si parce que man mi sax man ak samay gars sax dañ ciy discuter suñu ami d'enfance yi vér yi nangam sangam nangam mais loolu la politique noonu la ko war taxaw nag Pikine yëpp ñëw ne ku mel ni maire de la ville na fi Isaka Diop ñëw na fi ay nitu Modou Gueye la DG AS Pikine ñëw na fii département de Pikine yëpp ñëw nañu euh, ni ñu koy waxee sax kii Abdou Karim Sall borom mbaaw yónnee na fi mhm. kon moom bàyyi gars yi taxawu nañ ko mhm. gars yi duñ ko bàyyi benn yoon duñ ko seetaan mhm. merci encore une fois presse bi sant nañ leen gërëm nañ leen seen liggéey rafet na tamit question ba léegi yéen a fi pour lan information yi mu jàll parce que yéen a ko yoon monde entier nañ respecter presse bi tamit man Viri Affe mooy wax presse dañu leen joxaat seen cër xam ne liggéey rek moo wóor jërëjëf Fratello merci jaajëf alors euh, Gaynde Macky ñi ngi lay nuyu yow ku la xam-xam laak ba jaxate nga nekk jigéenam depuis deux jours wala trois jours mu nekk ci ay jafe-jafe quatre euh, mu nekk ci ay jafe-jafe yaa ngi woon ci biir lan la ñu mën a jàngee tey ci euh, procès bi nga xam ne am na waaw ñun maa ngi nuyu sénégalais yëpp man la Gaynde Macky man moom duma présenté wu mm. mais tey dama ñëwee ak casquette bu dama xaw a mer mm. waaw dama xaw a mer parce que bàyyi tey la am 4 jours 4 jours gisul ay ja ay gisul njabootam mu nekk loo xam ne dafa métti parce que tey imaginer bu nekkoon gaynde ki moo fi nekk tey parti bi taxawuñu bennoo taxawuñu taxawuñu jàppalewuñu mm. man gëmuma ay loolu ñuy wax noonu ci suuf man ci kaw ci en laa gëm waaw man assumé laa gëm man gëmuma gëmuma wax man damaa bëgg nga ñëw Achimène dooleel ñu même bu nekkee ñaari nit nañu gëstu gis leader mais quatre jours premier jour lañ gis quatre leaders cinq leaders léeg yeneen trois jours tey yëpp y a personne démb depuis onze heures ñu ngi fi tey depuis onze heures ñu ngi barki démb depuis onze heures ñu ngi fi mais nañu génn sotonir Baye Jaxate mu leer na tey bu nekkoon gaynde mag moo fi tëdd dañ koy fàtte parce que Baye activiste la am na ñoo xam ne dañuy def ngir ragal mais président Macky Sall laay lancé appel direct président Macky sanjaboot réer nañ. Mhm. sa njaboot jaxasoo na. Mhm. sa njaboot jooy nañ sa njaboot jaaxle nañ président Macky man kay na Macky maa ne sa njaboot jaxasoo nañ réer nañ wéet nañ président Macky Sall bu ñu demee ba Fuuta Tampi di di la langa Californie yow yaa tax président Macky Sall vocal ñu maa nga ñëw wax ak ñun. dëgg sa parti bi yëngatu na bu ñu gëstoo du ñu gis kenn. dégguñu kenn Bah Diakhaté nekk prison 4 jours ñu koy va-et-vient te mu yor ay preuve mu leer sénégalais yëpp ñu koy va-et-vient man nag nee naa leen xeexuma xuloowuma taaluma yàquma attaqué wu ma waa Pastef sama yoon ci ñoom man parti bi laay attaqué wax ak président Macky Sall direct président coono yu métti nga ñu bàyyee président sonn nañ président jaaxle nañ président dimbali leen Bah mu wuy ji ay njabootam. dañuy jàppale Baye Diakhaté mu dem wuy ji ay njabootam sonn na mhm. am na loo xam ne mënuñu koo wax mhm. mais nañ ko jàppale mhm. Baye day dëgër rek da góor rek ci ban état ko gisee wala boobaak léegi gisoo day firi gis naa ko mais day firi day wan ne dara mais góor la président Macky Sall bàyyi leen xel njaboot gi ñun ñu amul dara ci parti bi ñoo gën a sonn ci parti bi les influenceurs surtout tey Baye Diakhaté nekk 4 jours man durant quatre jours gisaguma nit kilifa gi mel naa ki ki ki taxaw rek ne kilifa la problème la nañu jàppale Baye Diakhaté nañu dooleel Baye Diakhaté yëkkatiwul kaddu gu gu bees Baye Diakhaté lépp lu mu wax da ko fee fekk Baye Diakhaté sosul da tegal vérité ci taabal ji nañu bàyyi doomu jàmbur mu ñibbi dafa jot. il fan mu nekk prison di bàyyi bien. libéré Bah Diakhaté nañ ko libéré nañ ko may jàmm. président Macky Sall waxalal sa njaboot. oui. waa APR dañoo seetaan man kay maki Macky ko wax waa Benno dañoo seetaan. nañu jàppale. nañu jàppale. non dafa métti. quatre jours. quatre jours Baye mënul gis njabootam Baye dafa wéet président Macky Sall sa njaboot sonn nañ sonn nañ jaaxle nañ nañu jàppale Baye Jaxate mu génn fi mu nekk woo leen influenceurs yi parce que duñu lay ragal. alors ñu ñu jël maître El Hadj Diouf le le plus rapidement possible bu ko defee itam mu dal di ñëw ci les faits maître s'il te plaît na ñëw tuuti bu ko defee ñu daal di ko jël dégg nañ kàddu yi nga xam ne itam si si day ñëw tuuti voilà ñu ñëw tuuti ñu